Euh, Snapchat euh, ay Brandy Snap. Brandy Snap d'accord Brandy Snap donc c'est des euh, desserts yoo xam ne c'est très populaire Pape Cheikh. waaw en Royaume-Uni. mu nekk mhm. ay mets sucrés yoo xamante ni mhm. li koy defar maanaam pour ñu mën a am. tube yi ñuy gis nii dañu jël lu toll ci 70 grammes farine jël lu toll ci 70 grammes beurre sofia bi nga xamante ni dañ ko enrichir en produit laitier Pape Cheikh donc jël miel maanaam lem ak suukar mélangé ko ci casserole bi ba mu seey donc nga jël lu toll ci 70 grammes farine donc def ko ci d'un seul coup donc soo paree soo paree nga yëngal ko def ci benn kuddu moitié kuddu jinjeer maanaam gingembre en poudre. ak tuuti citron. may ma ma ñëw tegalal ñu way sax ñu kii dund suñu émotion. tuuti waaw boo lekkee ba suur war ngaa gërëm waaw foofu la waaw kay ñu bëggee en attendant ñuy fekki monsieur Tombola ci biti. donc boo ak waa mélangé. da ngay hmm. am benn texture boo xamante ni dafay xaw a dafay xaw a dëgër. Hmm. donc nag nga jël sa plat bi nga xam ne mooy nekk ci four bi pap hmm. jël tuuti ci kuddu bi. def ko ci sa plat bi dem ci four bi. donc tàppal ko ak euh, doowu cuillère bi. donc après su génnee automatiquement da nga koy bàyyi une minute après nga rouler ko. donc mën nga jël euh, genre. genre tube yoo xamante ni dafa gudd. sama tuddee yi laa doon génne. donc nga nga roulé ko ci. <laughs> soo ko ci roulé. dama ne yokkat yëkkati sama këyit mbay duf di ba ree. mbay dama tuddee ni. bi gën a gudd muy yéen. allahu akbar Pape li moom du xëy. xale yi ngeen baal ma seen tonton dafa am xew. te dafa am ni mu ko tuddee yéen sax naa leen tuddee ci tuddee yi dégg nga seen tonton daa am ko mu tuddee. le 9 janvier yàlla la sa lunette yi réer Soda Bousso dafa def kayitu def samay kayit man tam maa ngi nii lii yëpp ci ay tuddee la Soda daa tuddee man tamit damaa tuddee le 9 janvier sama liste ngi waaw waaw àggalin waaw léegi <laughs> laa ne mu yuuxu <laughs> maanaam boo rulee <laughs> soo rulee sa pat après da ngay gis ni ay da ngay gis ni après pat bi dafay dafay dëgër après mu jël form tube bi nga xamante ni moom nga utiliser donc après suñu paree ci ci maanaam ci biscuit bi. donc après ñu ñëw ci chocolat bi da jël sa chocolat seeyal ko. def ci ñaari côté yi maanaam def chocolat. ba pare jël amande. def ko ci biir donc ci biir. li koy fàtte mooy crème crème fraîche. Ah. maanaam crème. Euh, euh. crème fraîche bi nga xam ne comme monté en chantilly. donc dañuy jël dañuy jël crème bi def ko ci biir. Euh. donc def ci biir. Euh, gaaw a riw si lii. e wu ñu. Euh. donc lii mooy lii mooy sunu brandy snaps mu nekk ay biscuits yoo xamante ni dama ko bëgg jox sunu finaliste yi Pape Cheikh ñu dégusté. sama princesse dama dàq ndaxte Maam Jaara ak Fatou. ak Fatou tey ñoom laa bëgg ñu dégusté.